naaw bañ leen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim daal di doole ak bi nga xamante ne daal nay sotteeku ci week-end bi ci Sénégal yëpp loolu nag gannaaw gox goxaat yu bëri yoo xamante ni daanaka mën nañ wax ne inondation sax moo fa am ndax ndox mi ni mu bëree lool ci week-end bi ca dëkk bii di Ndakaaru nag gis nañu taw bi ak jëye yi nga xamante ni daal dina ko fay def lool nag bokk na rek ci sax ñetti nit daal di ñàkk seen bakkan ci bile taw mu daal di nekk ay jéey yoo xamante ni ah, taw bu bëri bi rek daal dina koy def après la pluie c'est le beau temps waaye nag ah, fii ci Sénégal après la pluie c'est les dégâts loolu nag nekk loo xamante ni ah, dañ ko daal di nemmeeku bu baax baax ci yenn ci ay gox-goxaat fii ci Sénégal rawatina foofu ca Ndakaaru njiitu réew bi nag di Macky a gannaaw ñetti nit yooyu ñàkk seen bakkan daal nay jébbal ab message bu njaal rek ngir ñi nga xamante ni sax moom mooy ñi ñàkk seen. doom ci euh, li nga xamante ne euh, moom moo di euh, ndox mi nga xamante ni sax daanaka ni ki ci week-end wi rek dal nay sotteeku fépp ci Sénégal wax ci coowal mariage journaliste bu 2STV di Astou Dione moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax dal nay annoncé rek li ni mel ci ay page am ak sax photo ya nga xamante ni publié na ko mu mel ni nag kenn xamul woon kan moo dal di rek jël soxna bi les journalistes waaye nag mu mel ni daal dinañuy mujj xam ki nga xamante ne moom mooy borom këram Cher Yirim, Sek lay nek tamit journaliste analyste nek nak ko xamanteni ni nañ ko bu baax baax ci Sénégal mom Astu Dione nak Cheikh ko jël deuxième femme mu nek lo xamanteni ni surprise ci ñu bëree bëri waaye nak gannaaw mariage bobu non yenn sax ci ay ñu daal di koy ràññee bu baax a baax ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di internautes yi ci bile mariage ñoom nag daanaka sax mën nañu wax sulli ay histoire yu paase bokk na ci euh, histoire bu Cheikh Yérim sekk waaye tamit li nga xamante ni sax jot na koo dund ci li nga xamante ne euh, moom moo di coowal viol loolu nag internautes yi daal di koy génnewaat euh, duggal ko ci seen i commentaire gannaaw publication boobu nga xamante ni xam nañ ki nga xamante ne moom mooy borom këru Astou Dione bu 2 waaye tamit Astou Dione ak sax li mu jot a dund rek nekk ay coow yoo xamante daloon na ci ndoddam mu mel ni nag bile mariage daal dinay jur coow lool ci ñenn ñi nga xamante ay internautes lañ ak sax yenn ci ay commentaires yu négatif yoo xamante ni amal nañ ko en tout cas équipe bu Allô Sénégal yëpp mu ngi leen di ñaanal heureux ménage. ci leneen la ñuy wax kii di Soumboulou Bathily nag gisoon nañ sortie bi nga xamante ni defoon na ko di wax rek njiitu réew mi ci cherté de la vie loolu nag nekk loo xamante ni sax daanaka vidéo ba nga xamante ni ah, defoon na ko di wax rek ci ni dund gi seere ak sax ni mu méttee ci yenn ah, mu mel nag jotoon ay commentaires yoo xamante ni sax mën nañu wax ay yenn ci ay responsable génnoon nañ ah, di wax rek ci li nga xamante ne moom moo di vidéo boobu noonu bay dal ci kawam sax yàq ko lu mel ni xeme kii di Abdoulaye Diop Khass nag nekk borom këram gannaaw ba nga xamante ni tëju na lu yàgg génnul wax ci li ni mel mu mel ni nag daal génn di défendre rek sumbulu ci kàddu yooyu nga xamante ni yëkkati woon na ko wax ko ci li nga xamante ne moom moo di cherté de la vie moom Abdoulaye Diop Khass nag mu yor sax xanaa na kii di Soumboulou Bathily citoyen la comme ñëpp kon nag am na droit wax ci dund gi bu chéré kon nag gisul yenn yoo xamante ni sax ay attaque la jëm ci sumbulu te mu nekk rek ab citoyen boo xamante ni war na mën a wax sax li nga xamante ne moom la xalaat rek ci réew mi wax ci coowal Amy Léa bu série Karma ak kii di Wally Ballago Seck loolu nag gannaaw coow judd rek mu mel ni nag dañuy wax sax naan relation dafa daal di dox seen diggante muy kat bi di wali balago sek ak Amileya bu série Karma nak ami Amileya euh, gis nañu mu daal di def récemment ap snap euh, ci son wali bi di wurus euh, di défulé wu bu baax a baax ci li nga xamantene mom mo di son wali balago sek bobu lan mo am sen diggante relation ou pas en tout cas je donne ma langue au chat les plus information touké ci ñaar ni rek équipe wàllu Sénégal dina len ko dégtal kii di Soda Bousso ñu daal di koy ràññee bu baax baax ci yenn ci ay spectacle yu wali balago sek mom sax muy feussal rek rek ne maam la ci Wally Balago Seck te it mu doon mbokk gu jege ba sax fu Faramaren bi daal di tëggi rek moom Soodo Bousso du ko raté mukk récemment nag gis nañu moom Soodo Bousso daal di teew ci fi nga xamante ne moom moo di soirée Sidi Diop daal di koy enflammé bu baax a baax yëngal ko moom loolu nag nekk lu rafet loolu moom Soodo a teew ci soirée Sidi Diop mu nekk rek loo xamante ni artistes yëpp benn lañ dañuy demalante di dikkalante nekk loo xamante ni tamit exemple la fi ci Sénégal la ci yenn rek ñagas ñagas yoo xamante ni sax dal nañ koy ragné ci artiste yi nek fi ci Sénégal ki di Tické Laobé nak nekkon sax ko xamanteni dafa dal di jege sumburu ba ci lool récemment nak gis ñu problème bi nga xamanteni sax jotoon nañ ko am ba nga xamanteni sax mom Tické Laobé daa mel ni sax ku bayyi woon rek ki nga xamanteni mom modi sumburu di nak gis nañu Nabou ak live bi nga xamanteni mujjé mujjee na koo def mu melni nak day artu Tické Laobé rek di ko sax nan na wat ci sumburu ndax moom la mën a àndal waaye nag gannaaw kàddu yooyu nga xamante ni ah, kii di Nabou Dash yëkkati woon na ko nekk dal ci kaw Tické Laobé ah, moom nag xaarul dara Tické Laobé ngir génn rek andi ab réplique am gannaaw sax live ba nga xamante ni a ah, ngi ko doon amal tontu Nabou Dash ko lu mel ni a ci live boobu nga xamante ni a defoon na ko wax ko lu ne ci rek relation ak kii a Soumboulou coowal divorce entre Billy ak Marichou secoué la toile jamono ji loolu information bi fan la jóge ndax kat dañuy daal di jékki-jékki rek di feussal yenn ci ay information ci couple yo xamanteni sax meun nañ wax né euh, récemment rek lañ ko daal di fondé waaye nag kii di Big Mama ñu daal di koy ragné bu baax ci yenn ci ay série yu daw fi ci Sénégal daal dinay génn rek la ciow lol nga xamanteni ni sax danaka ñi ñëpp ñu ci yéey bi mom Big Mama nak muy wax sax naan ki di Khadim Sen Billy ak Marietou Diop di Marichou ñu ngi dund seen mbégte bu baax baax nañu arrêté information yi nga xamanteni sax ñu ngi koy fësal rek di wax naan dañoo divorcé ñoom ñaar ñu ngi amal seen sëy comme ni mu waree te ñu ngi dudd seen mbégte bu baax a baax wax ci keneen muy Miss Guèye moom nag mu dal di nekk koo xamante ni ràññe nañ ko ci yenn ci ay série moom la ñuy gis noonu tout belle toute ravissante mu nekk tamit une fille boo xamante ni pleine de charisme moom la ñuy gis noonu miis Guèye ak sax foto yu yees yi nga xamante ni daal dina koy publier wax ci mamito bu Wally Balago Seck moom nag gannaaw Mama Kine Diouf Diaga di amal anniversaire am rek ah, daf ko daal di ak surprise lol nak daldi nek nekk bu baax a baax ci wayjur bu jigen bu à Balago Seck ah, Mamito nak ñu gën ko xam sax ak woykat bi di wali Balago ah, rek ki nga xamantene ne modi moo di Mama Kiné Diouf ak surprise lors de son anniversaire benenup anniversaire ak benenup surprise tuké ci ki di Viviane à gannaaw doomu Youssou Ndour di Nelson Ndour di amal anniversaire am rek mom Viviane daf ko daal defal ap surprise rek teew ci bile anniversaire wuyal ko joyeux anniversaire lol tamit daal di nek mbégte bu baax a baax ci ki di yaay ji sax di Aïda koulibaly waye nak nek lo xamanteni tamit famille Ndour yep daal di nañ ci contane mu nek anniversaire bo xam ne daal di nañ koy fêter en famille rek ki di Nelson nek dom ci Youssou Ndour. ci beneen couple lañuy wax muy nday Marie bou série Karma ak Moussa Versailles ñom nak ñu ngay wëy rek di dund sen mbégte bu baax a baax ñom lañuy gis noonu ci image yi mu Marie di wëy rek di afficher ki nga xamantene Musa modi Moussa Versailles nek ki nga xamantene mom modi borom kërëm ñom ñaar nak ñu ngay wëy rek di dund sen amour bu baax baax wax ci ki di Amadou Diop ñu gën ko xam ci Moussa ci série bi di Mariama mom nak Moussa gannaaw sax confidence yi nga xamante ni daal dina koy def rek waat ci enfant sam ak sax lepp lu mu jotta dund rek muy fësal sax naan ba mu amé juroom ñaari at rek ci la ay way juroom dem fofa ci France bayiko ko ak ki nga ne moom moo di maamam euh, moom sax maamam bu jigéen moom moo ko daal di yar waaye tamit euh, mu kontaan bu baax a baax ci éducation bi nga xamante ni daal dinay tukkee rek ci maamam jëm ci moom euh, loolu nag nekk loo xamante ni sax ay confidence yoo xamante ne daal dina koy fësal rek gannaaw mu doon amal ab émission jëm rek ci li nga xamante ni sax moom moo di xët xaasewaat lii di vium ak sax lépp loo xamante ni jot na ko dund ci àdduna bi diwaanu Parcelles Assainies soxna si nag Bint lay wuyoo moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax sax kii di boroom këram moom moo dal di divulguer rek ñeenti vidéo sex tap loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax di na koy envoyé rek ab cousin buy wuyoo ci turu Mansour kooku nag jël vidéo yi envoyé ko beneen cousin buy wuyoo ci Karim Karim moomu daal di jël yile vidéo daal di koy partagé rek ak xaritam bu ñuy wax bàyyi loolu nag nekk vidéo sex tap yoo xamante ni daal dinañ koy passante rek te kenn waralu li ni mel muy boroom këram borom këru bint sax moom moo daal di def ñeenti vidéo sextape waaye nag gannaaw ba nga xamante ni euh, yoon daal dina cay jot euh, kii di euh, tribunal bu ndakaaru ñu naan sax flagrant bu ndakaaru daal dina sax daal di yóbbu rek ñett ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo daal di rek jot yile vidéo lool nag liñ leen di toppee mooy daal di publier rek ay image yoo xamante ni sax mën nañ wax ay caractère obscène la nekk rek loo xamante ni daal nañ koy partager rek te amoon ci ndigal yoon nag daal ni nay def rek la ca war ci dossier bi Mbathio Ndiaye récemment gis nañ rek ah, xaritam bi nga xamante ni sax génnoon na rek di dal ci kawam yàq ko lu mel ni xeme waaye nag mu mel ni ah, moom nag faalewul yi le commentaire toppatoowu ko ndax kat gis nañu ah, mu daal di teew ca soirée Keba Seck Keba nag di wéy ki nga xamante ne moom moo di Mbathio Ndiaye ci sonwu sax doomam ji di Wally Ballago Seck loolu nag daal di nekk lu ñu rafetlu lool ci di Mbathio Ndiaye bañ a tontu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ses détracteurs waaye tamit Keba mi nga xamante ni sax jàpp nañ ne dafa amoon wali Ballago Seck reprendre bi leçon euh, wey ci rek ki nga xamantene mom modi moo di ñuy defulé wu rek euh, ci soirée ba lol nak dal di doona mbekté bu baaxa a dam sen dal daal dinay rek euh, woté jàmm ci digënté wali Ballago Seck ak Sidi Diop loolu nag jëm rek ci liw Faramaren mi nga xamanteni ni sax dañu japoné ne ay ñooñu wali ñoom ñoko dal di kidnapper gannaaw saaga yi nga xamanteni sax doon na fësal rek mom na Dame Sène nag di wat jamm bu baaxa a baax ci digënté ñaar artistes yi tamit manager Sidi Diop ak manager Wally Balago Seck ngir rek jàmm daal di dikkaat te xam ne ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañ te jàmm rek moom moo daal di xàcc ci milieu showbiz bi mbokk yi safoon doon ñu lii rek lañ leen loon seen acte du jour di leen ñaan jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bañ raté dara suñu information jërë ngeen jëf